c'est bon Adja Adja on rejoint alors amuñu li ñuy perdre nag temps bi dama dama pressé waaw Adja Adja. mais le mama serré la même chose que ça. chaque jour bala ñuy tambali ñu jang ñaan bokku ci ndigal ah inshallah allah fatiha juróom-ñetti xuraysh falax ak naasi salaatul fatiha bismillah Thank you. اللهم لا يكون سوء aca merci bismillah ñu soog a démarrer ñu soog a démarrer

i Terima kasih.

sac bi mënul dugg. cortège buy ñëw damaa ragal taxaw. yaa teg son foofu yaa teg son foofu si micro Boy, dimbali. Non, boy, après nga jox ma ko, eh.

Pazpjeznego fefe don elek Se ka das ko se kalpe Gjok që ali më muri gjallë po pyrë pale Senegal ngi Bëri aj kom kom Kuj e lëng kam kam Gjokë në bëjnë dhe Jelle fëni që po mu i del Akëllë samë në tani mi Gjitë në bële Mitë në tangi Shvajë syrë Lone i I'm the assure,

Sangalen po, sangalen ki. Ongkan, suat ongkan, ongkan, ongkan. Ongkan, suat ongkan, ongkan, ongkan. Alu, alu mama duja. Alu, alu mama duja. President, alu, alu mama duja. Alu, alu mama duja. Ongkan. Kalau di Farhan ya, Kalau di alors ya, ini. wallahi tomorrow Never need to not tange sawan bawan mo na ci xolam dox jëm 2024 c'est maintenant ou jamais ku ko mën a ku ko jéem non non non mënu ñooyam dinañ no, no, no, no, no, no, yaa ñu doy ci président le parti pur ak alio mamadou dia ku la waayoo ana waay ku la raali racine real me no wote Never run my sweet problema di Yo do boy wote Terulerko, terulerko Sargalerko, sargalenki Ongan, swan ongan, ongan, ongan Ongan, swan ongan, ongan, ongan Aliu, aliu mama duja Ready down, aliu Nobody's nobody. ah nobody bëri nobody bëri. réew mi nobody bëri ni mu gën a bëri gën a baax. non bu tax bés. dégg nga la. ah

Futur 2024. La victoire si c'est pur su ma ngaas di teg naataange mooy suñu programme say jeex na jëf moo des beneen senegal bu wuuteeg bii 25 dañu koy matal par pièce na nga fexe doon électeur sa carte daas ko sa kalpe jóg ca ba muy teel votel pur ñu nag Aliou Mamadou Diallo ba bii pale Sénégal ngi bëri ay koom-koom kuy defar lañ ba doon dañ dañ jaay ngi ak muy xam-xam jox ko naw

Aliou Aliou Ukotonu jegele African eagle Is the news Hawaii Nitana tange beno Mulul damba is a moro Never need kuna tange sawan Bawan mona jam 2024 Sementan na jem No no no munu nyoya Pina lefal Ayo mama ruja Yo yang yutoi président, le parti Burak, Aléo Mamadou Dia. Thank you skin. Alu, alu mama duja. Alu, alu mama duja. Ready down. Alu, alu mama duja. Alu, alu mama duja. Ongan, sot ongan, ongan, ongan, ongan, sot ongan, ongan, ongan. président day génn de mën nga commenté. dëgg la 2024. AMD, mon choix, allez la victoire. te pur sama ngaas li teg naataange mooy suñu programme say nelaw jeex na jëf moo tees beneen Sénégal bu wuuteeg bii vingt cinq dañu koy matal par pièce na nga fexe doon électeur sa carte daf ko sa kalpe jóg ci ba muy teel votel pur ñu nag Aliou Mamadou Diallo ba biir pale Sénégal ngi bëri ay koom-koom kuy defar lañ bëgg béy nañ jaayam ngi ak bay xam-xam jox ko noo bay dëgg yàlla si ca ba muy teel alors salaamaaleykum yéen ñi nga xam ñu suivre à travers euh, la page officielle euh, du président Aliou Mamadou Dia mi ngeen di seen noonu mu génn nekk fii tey euh, ci Sébikotane voilà ñu fas yéene amal euh, rek doxum nemmeeku euh, ngeen am le président Ali Mamadou Dia muy saaxoonteeg waa Sébikotane ngeen di ko gis noonu le le incha allah le cinquième président du Sénégal. ngeen gis une forte mobilisation ñëw teeru si ko fii ci Sébikotane voilà foule bi di acclamer prési prési prési le président Ali Mamadou Dia kon nag waa Sébikotane voilà le président ngeen di gis population saafonte euh, euh, population bu euh, kotan donc euh, Ali Mamadou Dia je veux des cœurs verts blancs commentaires. commentaire je veux le nom du président Ali Mamadou Dia commentaire

voilà le président Ali Mamadou ici à Sibé-Kotan. voilà ñen di ko gis nonu mu ngi nek di nuyo ak s'affronter euh, ak doomu donc le président Ali Mamadou cinquième président Inshallah. allah yéen le live bi kan ngeen àndal je veux voir des cœurs verts blancs le nom du président Ali Mamadou en commentaire s'il vous plaît je veux voir le drapeau Sénégal s'il vous plaît Ah mais c'est Amesero. Qui moi l'homme de développement ki nga xamante ni si choix voilà ci moom la porté où parce que Sénégal fi mu jëm il faut ñu am njiit njiit bu nga xam te si vraiment dafay dafay wuyoo turam te Qui di leader xam nga ni le président Ali Mamadou Dia c'est un vrai leader c'est un homme de développement micro micro maa ngi leen di sant di leen gërëm waa xam ngeen lu xew Sébikotane la commencé sama campagne maa ngi soog donc maa ngi di sant bu baax baax di leen gërëm di leen wax ne dinaa rombaat jëm Thiès ñu génnaat ci mbedd bi ñu génnaat ci tali bi su ma ñëwee ñu gën a waxtaan. maa ngi nuyu nag di sant bu baax jigéenu marché bi gis naa condition yu marché bi nekk incha allah bu ñu jëlee réew mi ñu ko defar bu ñu jëlee réew mi sunu yaay yu baax yi dootuñu toog ci suuf di jaay ay jën dootuñu nangu lool donc ñu di gërëm dinañ ñëwaat Sébikotane Sébikotane ça a été une à une ville importante pour son éducation ñun ñëpp xam nañ lycée William Ponty fii la nekkoon ci Sébikotane ñi tekki dara yëpp Sénégal fii la ñu jàngee dinañu defaat ay école université bu mucc ayib fii ci Sébikotane pour former la jeunesse sénégalaise bu baax baax moderniser la ville inshallah, allah di sant ñëpp di gërëm ñëpp xale yi xale yi man ak yéen man ak yéen man ak yéen man ak yéen ba réew mi baax kon nag mi ngi noonu le président comme ni mu ko waxee xale yi man ak yéen ba réew mi baax donc appel la rek boo xamante ne si la jeunesse sénégalaise dañ ko war a def am li nga xam ne moom la ñuy wax confiance à chaque fois ni mi koy waxee. réew mi toll na fu nga xamante ni dafa soxla ay ndawam kon nag euh, di dugg si gaal yi di dem yëpp jaru ko espoir rek la ñu soxla espoir baa ngi nii kon nag li mu ko waxee xale yi xale yi xale yi man ak yéen mi ba réew mi baax alors je veux dire Aliou Mamadou commentaire le président Aliou Mamadou Dia ay soxla yi ñu ngi jërëjëf waa Kébé bi saade suñu ko waxee dina marché bi yéen gis na ko incha su jëlee réew mi nee loolu dina ci marché bi faaw ñu sàkk ci pexe. kon nag cortège baa ngi caravane baa ngi noonu ñu fas yéene le président Aliou Mamadou Dia voilà donc on continuer rek. te comme nous nga dit, euh, le président a Mamadou Dia wax suba ñu commencé campagne yi ah fu ngeen mën a nekk Sénégal gox yi ak goxaat yi ñu xaar ko nee na dinaa ñëw fépp incha allah kooku mooy le président Aliou di Dia l'homme de développement fete doon électeur sa carte tas ko sa kalpe jóg ci ba muy teel votel piir ñu nag Aliou Mamadou Diallo ba bii pale bari ay koom-koom kuy defar lañ bëgg ngay ndeen jaayam ngi ak bari xam-xam jox ko na bay dëgg yàlla fi ñu jàpp muy teer am xale sàmm na tànn réew mi la ci tënk doole indi tënk naa tànge soyez sûr loolu pire I'm bien sûr avec vous Aliu, aliu mama duja. Aliu, aliu mama duja. President, aliu, aliu mama duja. Aliu, aliu mama duja. Son kunal, personne barre que c'est talibé. Qui coupait fille, Mail, des cocoton, mon jégalé. Africa, Nico, is the new Santa Hawaii. Nitamata, Gebena, Mulden, Bays, Amoro, Devanit, Kunatangesa, Wan, Wan, Monet, Holam. Tocam da bilsen kar Simetin na ujame Kupam para kupa jem No no no munyaya Tina lefal Alio mama ruja Yo ya nyutoy Chi president Lepati pirak Alio mama ruja Kurawayo Ano that's enough. If real me no hot day, if a room pass with a problematic, you don't go you want it. Teru let go, teru let go. Circle let go, circle let ki. Onkai, swat onkai, onkai, onkai. Onkai, swat onkai, onkai, onkai. Ayo.

Pray hong hong Chok no pray the the Yal le fi ni chak no mi te Khalai sang mo na tam bi do mi le jin te La la yin mi tang na tang Le choix est I'm the assure Avec vous assure Allô, allô maman Doucha Allô, Aliyu Muhammadu Ja, President Aliyu, Aliyu Muhammadu Ja, Aliyu, Aliyu Muhammadu Ja. Ọ̀kan sọ ọ̀kan fún ọ̀kan ọ̀kan, ọ̀kan sọ ọ̀kan fún ọ̀kan ọ̀kan. Fọ̀nkúnná lọ, lọ́sàn bá xẹ́ sí tàálí bẹ́ẹ̀. Kíkú bẹ́ẹ̀ fi ọdún bí arúgbó. Kò nyàmú máìlì, tẹ̀kú kótó ní jẹ́ kẹlẹ́. Afrika die cover Gis na ñu sax ta xaway Nit am na ta nga ben Mulul dem bayi sa moro sa wan Ta wan mo na ci xolam ka Se na u jame Ku na ma u na ya Ti na nge fal Ayo mama du ja Ayo ya ñu president Le parti burak aliyo Mamadou Dia kula wayo anna way kula ali rasi dafa réew mi nga wote, dafa lu ma sule problématique yow doo koy wute teru leen cây xoắn bóng cây bóng cây bóng cây bóng cây xoắn bóng cây bóng cây bóng cây bóng cây ai alo mama tuja alo alo Thank you. carte. AMD, mon choix, Ali Mamadou Dia, la victoire. si c'est pur je m'engage di teg naataange mooy suñu programme say nelaw jeex na jëf moo dees beneen Sénégal bu wuute bii 25 dañu koy matal par pièce na nga fexe doon électeur sa carte tas ko sa campagne jóg ca ba muy teel votel pur ñu nag Aliou Mamadou Diallo ba

Adieu ton pain Africa, we go Gis na nyutsa tahawu Tantante de peine

Never real me reuniendo, bote. Te me lo más, soy problemático.